sadaqallahu alazim wa ballaga mawlana rasuluhu alkarim wa naxnu ala haada min alchaahidin mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu ñëpp di jéggalu ñëpp di njort ni ñëpp a ngi si jàmm alhamdulillah Euh, di dellu siwaat ci live ñu tàmmoon di def te jamono yu yàgg ba tey euh, ñu xawoon ko dagg nekk ci ay yitte te yàlla dimbali ñu ñu ñëwaat war a defaat jàngat ci benn occasion bu solennel euh, ci benn xaal bu solennel ñu nekk tamit ci jamono bi nga xam ne jamono bu bu doy la ñu war a am seetlu ak euh, ak jàngat tey ci calendrier musulman dafa tombel euh, lu ñuy wax xayu rajab on parle ñun de xayu rajab euh, pour dire le quinze du mois de rajab maanaam la mi rajab bés bu spécial la ci lépp lu mu làmboo ci ay secret ci ay mbóot ci ay xew-xew ndax bu ñu fàtte ni weer bi ñu nekk euh, ci weer yu sell yu sacré yi ci ci islam la bokk islam dafa am quatre mois ñu jàpp ni quatre mois sacré la euh, rajab benn la ci zulqaada muy le onzième mois benn la ci zulhijja muy la dernier mois mais xam mooy weeru aj benn la ci mu muharram muy la premier mois bu tamxarit nekk tamit benn la ci ñetti mois yëpp dañoo teglante waaye weer bii rajab moom dafa ñëw rek wéet yonent bi saa nag mooy jàngaloon nañu rajab shahrullah mu ne rajab nag mooy weeru yàlla weeru yàlla nag wax dëgg yàlla war nañ ci fàttalante yàlla war nañ ci fàttalante en tant que ay jaamu yàlla war nañ ci fàttalante dëgg te melo la ci melo yàlla yi ndax yàlla mooy alxaq jamono bu nekk dañoo war a àndandoo ci dëgg rawat na yenn jamono yi xam ne dëgg dafa tumuranke ñu war a gën a góorgóorlu si jamono yooyu gën a fàttalante dëgg ndax jamono yooyu wax dëgg euh, moo ëpp yool sax te moo ëpp fay yeneen jamono yi xam ne euh, dëgg leer na te ñëpp xam nañ ko ñu fàttali nag ni yàlla message bi mu yónni ci ay yonent yonent yooyu ñëw di joxe message yu yàlla subhaanahu wa di andi ay règlu yàlla yonent jeex yàlla ko ne yabal ñu ay wal yu yàlla wal yu ñëw di ñu andi leer ak njub di ñu yokk xam-xam di ñu di ñu tàggat ñii ñëpp seen mission mën nañ ko teg ci ñaari point rek bi ci njëkk yaamuruna bil maaruf wa yanhawna anil munkar ils ont juste euh, dañoo digle li nga xam ne mooy lu taaru te rafet ba pare tere li nga xam ne dafa dàqu te ñaaw ñoom ñëpp lii moo nekkoon seen première mission waaye ñaaral mission bi mu mission bu am solo ay alxante moo ko dëggal ba tey qul jaa al xaq wa zahaqa al batil mooy kat ah waxal ni kat dëgg dikk na te leer na te yàllaay dëgg mu ne wa zahaqa al batil waaye le faux daal dina ne daw dina mes ndax dëgg ak lu dul dëgg duñu saxandoo ci benn bërëb waaw ah, macha allah ñaar yi nag ah, jamono bu nekk dañu war di fàttali liggéeyu góor yàlla yi waaye rawat na jamono bii ñu nekk nga xam ne ah, du ñàq nag ñu digg ñu dikk ci tey Hayu Rajab nag tey lu waraloon tey suñu live bi live bi gàmmu la ndax comme vous le savez léegi di dëgg yàlla mëntuma ko sax nëbb <laughs> ndax dafa leer mooy Mawlana Cheikh Ibrahim ñas al Kawlaxi nafaana allahu bihi amin eh, tey jii mooy anniversaire am eh, taalibe nag yàgg na di fuglu sëriñam yàgg na di teewlu ak di gëstu sëriñam yàgg na jàpp ay bés yi nga xam ne bés la yu yu symbolique ci dudd sëriñam mu toog si jéem ci def jàngat jéem ci laayante biir eh, Mawlana Cheikh Ibrahim boobu nag am na lu bëri lu ñu mën a wax ci moom comme mboolee bi góor yàlla yi wàcc Sénégal ndax yàlla daf ñu defal teraanga wàcceel ko góor yàlla yu bëree bëri waaye nag euh, daf ci am lenn li nga xam ne moo ma si gën a ñor muy jàngaleem ak li mu àndi pour gën a euh, laaye biir ay mbokk jullitam ndax jullit la bu ñëw si jamono fekk jamonoom feebar am ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu ci wàllu zahir ak ci wàllu baatin mu jéem a àndi participation pour solutionner ko euh, débat bi nag foofu laa ko na la teg moo tax débat boobu exclurewul sax ki nga xam ne nekkul taalibe Cheikh Ibrahim ndax man jàpp naa ne kilifa yu baax yi wàcc Sénégal képp ku mu mënti doon seen taalibe nga ak ku mënti doon donc euh, macha allah ñu ubbee woon nag tey euh, suñu dars ci euh, suratu Ibrahim dañoo faraloon chaque fois suñu def live tàmbali ci benn saar wax tuuti ci xéewalu saar boobu soo ko dugg suñu biir waxtaan moo naa Cheikh Ibrahim tey nag. ñëw ma pour waxtaan ci ay jaar-jaaram ñëw ma pour waxtaan ci ay maqaamam ñëwuma euh, ci waxtaan ci ay téerim ñëw ci waxtaan ci ay karaamam ñëw ci waxtaan ci ay taalibeem euh, waxtaanuma ci kaalaam gi waxtaanuma ci ay faasam waaye dafa am benn dimension bi nga xam ne muy un homme de son temps qui s'est battu pour la vérité ak la liberté dimension boobu tey jii moom a ñor par rapport ak contexte bu ñu nekk ñu bën ci jéem xool nu ñu ci mën a jariñu euh, macha allah ndax loolu rek la góor yàlla yi di jariñ alquran daf ñu tuddal lu bëree bari ñuy fàttaliku waskur fil kitab ibrahim waskur fil kitab yusufa waskur fil kitab ayuba waskur waskur waskur euh, yàlla mu ñuy fàttaliloo dañu fàttaliku tuddal ci téere bi ndax war nañu fàttaliku ñu baax ñi ndax fàttaliku ñu baax ñi def ñu may tey jii ñu am ay repère ñu am ay référence pour mën a jànkuwante ba pare dékku suñu réalité euh, présente surtout Ibrahima bu mu ubbee nag sourate la bi nga xam ne sourate bu bu extraordinaire la comme toutes les sourates du Coran suñuy xool jamono bii ci alquran euh, par ordre moom mooy quatorzième sourate Euh, ci ordre actuellement bi ñu tëralee alquran waaye ci révélation bi c'est la soixante douzième sourate révélée n'est-ce pas soixante douzième euh, macha allah euh, muy muy muy saar bi nga xam ne cinquante deux aaya la làmboo muy cinquante ak juróom fukk ak ñaar aaya yépp ñu ngi wàccee Makka ba mu des ñaari aaya n'est-ce pas aaya fukk ak juróom-ñett muy dix-huitième verset ak aaya vingt-neuf ces deux versets là wàccuñu euh, màq ñu ngi ñu ngi dikkee madinatul munawwara saar bi nag saar bu extraordinaire la ndax wax nañ ne ku koy jàng ku ko jàng àjjuma sax euh, yàlla na ko musal ci ndof yàlla na ko musal tamit ci yenn feebaru yaram loolu xam naa ne si ñëw léegi incha allah euh, muy saar bu kéemtaani ndax kenn la ci saar yi nga xam ne yàlla mu ngi ko ubbee xurufam yu tedd yooyu nga xam ne gàttaloo na ñuy woowee ulamaaw yi mooy borom xam-xam yi ñu si bëri si ñoom nee ñu wallaahu aalam nee ñu yàlla kese yàllaa xam yàlla nag wàccewul si alquran mbir yi nga xam ne euh, waruñu koo xam euh, alquran bi message la pour les hommes euh, message bi nga xam ne nag li uulil albab c'est pour les gens doués de raison kon alquran. ñëwul kon nekk un message hermétique incompréhensible et inaccessible de tous les hommes alxuraan loolu du vocation am n'est-ce pas alxuraan euh, message la bu bàyyeekoo ci borom bi subhaanahu wa taala c'est la corde bi nga xam ne moo ñu liyeeg yàlla leer la bu tedd bu béel bi nga xam ne lépp lu ñu soxla suñu diggante ak suñu borom yàlla leeral na ko ci yàlla jox nañ ci xibaar ñu jiitu woon jox nañu si li ñu nar a fekk ji ëllëg bu ñu demee jox nañ ci loi. pour ñu mën a dundandoo entre ñun jàngal nañu ci science ak ay xam-xam jox nañ ci mbóot ak mystique jox nañu ay loi pour ñu ko jëfandikoo jox nañu ay stratégie ak ay programme pour suñu dund mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a yees mën a yell jox nañu si duñu mën a fajoo ak duñ ko mën a jëfandikoo yàlla bàyyiwul dara ci téere bi comme ni ko waxee rek maa farat naa fil kitaab min shay nee na bàyyiwuma dara dans le livre yàlla il n'a rien laissé il n'a rien omis nest pas donc lii kon kon ñun jullit ñu kon nous avons déjà des réponse pour toutes les crises yi nga xam ne moom mooy les crises présentes ak les crises futures yu ñu war a yu ñu dëgmal dafa mel ni kon yàlla wax na ak ñun ba pare léegi nag quelle la norme de codification bu yàlla waxee ak ñun quelles sont les clés de décodage yu ñu war a jëfandikoo pour mën a actualiser le Coran euh, qui est une réalité atemporelle euh, une réalité abstraite naka lañ koy mën a jëfandikoo dëgmal ko tënk ko. xool ko suñu jamono ak suñu letu jamono pour mën a xool naka la ñu yàlla saafaralee euh, jafe-jafe ak mettitu ñuy dund saar bii nag euh, benn la ci saar yi nga xam ne kon mu ngi ubbeekoo ci benn ci futuhaat yi muy ban muy alif laam alif laam ay xam-xam yu doy waar ñu ngi làkku ci biir euh, bokkut ak boroom xam-xam boobu waxoon ne moom gis ne alif laam commencement rek arrahman la Euh, si gis gisab moom dafa gis ne suñ jëlee alif lam ra ak xaamim muy beneen ubbeeku ak nuun neen soo ko boolee arrahman la ko yàlla dafa fractionné ay turam rek euh, dans le début des sourates waaw xalaatam moo toll foofu rek waaye alif lam ra weesu na loolu n'est-ce donc euh, am na si ab liggéey bu ndaw bi nga xam ne tàmbali woon ko ci def Euh, ci xuruf yooyu nga xam ne yàlla ubbee na ko muy xuruf fukk ñeent muy quatorze lettres yi nga xam ne moom la yàlla ubbee euh, yenn si saaru alquran yi disons soixante dix huit nest pas euh, fukki xuruf ak ñeent yooyu yàlla jëfandikoo fukki manière ak ñeent yu mu àndee fukki xuruf ak ñeent yooyu maanaam c'est quatorze lettres yu yàlla jëfandikoo sur quatorze formules différentes kon lii déjà wax dëgg yàlla c'est pas c' est pas un jeu macha allah sayer comme xaaf xaaf ci la bokk n' ce pas donc euh, ki ma bëgg a waxtaanee tey nag muy ki nga xam ne kenn la ci suufiyanke yu yàlla wërsëgal Sénégal euh, di boroom xam-xam euh, di un grand intellectuel un homme de son temps bu xaw a nekk en avance par rapport ak jamonom porter ay combats yoo xam ne ay combats d' unification du continent africain la doon sonn pour dajale. Euh, bëri lool lu mu voyagé si jamonoom c'était un homme kon de son temps wax dëgg yàlla euh, bëri ay kilifa maanaam ay président ak ay buur yoo xam ne euh, xamante woon na ñoom te demalante na ak ñoom bëri ay organisation mondiale des ligues islamiques ak ay organisations yoo xam ne yëpp pour benn lay jullit ñi la yoo xam ne moom yenn yi il e à la conception yenn yi il est fondateur yenn yi il a eu des responsabilités di ko diriger kon nit kooku wax dëgg yàlla dafa mel ni xamoon na Euh, sans réalité du temps muy réalité bi xam ne ñett yi rek moo ko dëkk la nécessité pour les musulmans de s'unir nekk benn kon kooku toolam wax dëgg yàlla euh, yemalee ko sax Sénégal waaye gisoon na ni war na ko génnee bitim réew muy benn euh, ñaar la nécessité pour les musulmans de procéder en un retour de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu jox nañu mboolee mi jumtukaay ak mboolee mi solution pour ñu mën a faire face au problème suñu jamono muy ñaar waaye ñett bi la nécessité d'avoir sa souveraineté pour se dégager euh, de Dajjal ak ak sa sa réalité n'est-ce pas kon kooku teel na comprendre loolu bu baax a baax ba pare ñaax si doomu aadama yi di ci dox euh, ci dundam gi yëpp donc kon tey vous l'aurez compris je ne suis pas là pour parler euh, de l'homme ci ay jaar-jaaram dafa garaaw moo naaw fii moo tëb fee loolu vraiment ça ne nous intéresse ndaxte góor yàlla yi moom kenn ku ci nekk xanaa ku yàlla dimbaliwul defal la tawfiix ndax tasawuf nag lii mooy jàngoro bu gën a mag fi Sénégal ñu bëri ñii tijaan lañu ñii xaadar lañu ñii murit lañu ñii laayeen lañu ñu si bëri ils ont raté la coche maanaam dañoo réere sax li ñu nekk noonu lan la dañ ko réere xamuñu ko ñoom ñu ngi ci parparloo ci rëy rëylu ak ci rawante wax dëgg yàlla taxul woon jug tasawuf n'est-ce tasawuf li ko taxoon a jug c'est Euh, de purification d'élévation de perfectionnement euh, dans la voie de Dieu subhanahu wa taala li kese moo tax di tasawuf amul leneen wax dëgg yàlla donc euh, tàmbali kon saar bi rek mu ñuy jàngal kon lenn ci dimension kenn kee xam ne muy kee xam ne mooy borom gàmmu tey ji ndax tey ji la gën a siwoon àdduna ndax saar bi dafa wax ne alif laam raa la tàmbali dax mel ni mën nañu wax ni virgule donte arab amul ay virgule sax yooyu mais mën nañ ne virgule mu ne kitaabun anzalnaahu ilayka li kat téere la bi nga xam ne dañ ko wàccee ci yow li tuxrija naasi pour nga génnee doomu aadama yi mina zulumaati ila nuur pour nga génnee leen des ténèbres maanaam ci lëndëm yi euh, ila nuur vers la lumière bi izni rabbihim ci sa ci sa ndigalu borom ci sa ndigalu borom mu ne ila siraat aziz al déjà euh, dafa mel ni sa aaya bi sax tënk na mission man ki ma bëgg waxtaanee ci li mu àndi ndax tey dafa am ay mbokk yi ma laaj ma meewam lan la àndi mais balaa meeg si foofu la maa benn bu ndaw par rapport ak euh, Sénégal fi mu toll tey fi mu toll ndax fi mu toll dafa trop ñu ñu ko saar bi nag mbóot la bi nga xam ne daal wax dëgg yàlla man koy digal ñi nga xam ne dañuy sàkku euh, xam-xam yu yàlla di bettaate ndax yàlla dafay bettaate yi xam-xam. yàlla dafay jagle yenn xam-xam yi nga xam ne daf koy jékki-jékki rek sànni ko ci dënnu nit doomu aadama bu xam ko bokk na ci lu yàlla di xamale wala yàlla boog boole laa kenn ci ay nitam ci ay jaamam moo xam euh, ay nit lañu wala ay malaaka lañu wala ay jinn lañu yàlla yabal leen pour ñu ñëw instruire la waaye yàlla wax dëgg yàlla daa iman mu ngi sax di jàngal doomu aadama yi donc saar bi bëri na loolu ay mbóot am na lu bëri luñ ciy def ci wàllu tasawuf ndax euh, ay chiffres sax numériquement saar dafay wax. waaw euh, xam nga saar bi nga xamante naa la cinquante deux versets la n'est-ce pas euh, au-delà de ces versets la triptyque de la construction coranique waaw euh, mooy en trois cinquante deux versets la huit cent waaye trois mille cinq cent quarante et un lettres la donc lii mooy la triptyque bi nga xam ne lettre mot verset dans un dans une sourate noonu la ñuy comprendre kër gi maanaam kër gi dafa mel ni kër la boo am ay néeg ci biir néegi tamit am ay. ay bagages lii moom ñiy dox ci architecture coranique xam nañ lan laay wax parce que alxuraan nag euh, dafa am architecture donc euh, chaque fois dama koy revendiquer damay ne yi euh, ñun alxuraan daf ñu sóob ba pare nàndal ñu ci ay xam-xam yu xóot du jàngu tubaab bi wala yëfi nasaraan yi moo ñu mën a xamal dara waaw suñu li ñu war a xam ñun jullit ñi dañoo nekk en avance par rapport à la science d'ailleurs maa ngi ci pare. benn téere bi nga xamee sur euh, un traité de la science bi nga xamee euh, devant la lecture coranique c'est que temps moom dama bëri liggéey yu ma sumb lool ndax engagé naa benn liggéey itam si ay jinne si jinne yi ndax euh, foo leen fàttalikoo fan yee ñu ngi woon ci ay waxtaan yi xam ne ak ay xeetu doomu aadama yi xam ne maanaam narkat yi rek ci nekk si dëkk bi di nar rek di wax yu bëri si jinne di wax si ay mbir yi nga xam ne wax dëgg yàlla amuñ ci benn xam-xam donc euh, yoon la kon toujours kon ñu jéem a xool di di di di partager di gëstu di jël de gauche droite lépp li xam moom la borom xam-xam yi wax jéem ko partager le maximum parce que yàlla dafa def ne sur yenn domaine moo xam domaine spirituel la wala domaine tasawuf la wala domaine mystique euh, ñu bëri dañoo am benn barrière linguistique bi nga xam ne moo leen tere évoluer ndax ils ne maîtrisent arab la langue arabe de livres beaucoup de connaissances yoo xam ne contenues dans des Euh, connaissances yooyu c'est c'est en arabe n'est-ce pas muy benn ñeen ni c'est des connaissances yoo xam ne liées au cheminement spirituel maanaam ci suluk ci ànd ak kenn ki xam ne bii la ñu bëri tamit yàlla daf leen napp euh, jotuñu tasanteeg euh, cheikhu bi ñu mën a ànd ak moom pour mën a jariñu peut-être defaru ci wàllu xam-xamu biir yi ndax xam-xam yi moom xam-xamu biir ak ay xam-xamu biti n'est-ce pas donc lii andi na kon wax dëgg yàlla ñuy war a toujours kon di facilité la connaissance dans les langues yu gars yi xam muy français muy wolof wala dans les live di échanger euh, pour euh, ñu nekk à des niveaux de connaissance à peu près semblable euh, pour wàññi nax gi wàññi caay-caay gi ak voilà ak dóor bi ñu woowee dóor bi mais donc parenthèse ma bëggoon tàmbali avant may gën a xóot kon parce que li moom introduction la woon rek parenthèse bi mooy xew-xew bi tey jii si Sénégal fi mu toll ndax nag Euh, jamono bu nekk wax dëgg euh, wareef la euh, chaque fois ma fàttali te damay réclamer je réclame suñu islamisme islam dans sa conception l'islam est éminemment politique l'islam mënul ignorer ce qui se passe ci penc mi c'est pas possible nest tamit mënul ignorer saa yu amee jaay doole n'est-ce pas jaay doole islaam mënul d'accord ci jaay doole chaque fois mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na euh, bokk na ci xeex yi xam ne moom la njëkk xeex balaa sax risaala bi di jolli euh, muy xeex contre l'injustice contre injustice boobu ci màq moo indi woon xilful fudul n'est-ce pas euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam il n'avait pas encore 40 ans maanaam tàbbeegul woon ci moom waaye gisoon nañ ni màq. Euh, jaay doole dafa fa amoon ñu ñu ñu constitué wu en benn structure bi nga xam ne benn comité pour tere jaay doole am ci réew mi ci biir màq bi islam ñëwagul ah yentu saa sam ci acteur fondamental yu bokkoon ci xeex boobu la woon pour jaay doole bañ fa am ndax li àndoon problème yëpp benn nit la étranger la bu ñu jaay doole ci biir màq ndax amu fa mbokk n'est-ce pas yonent bi c'était engagé ba nga xam ne même ginnaaw ba l'islam wàccee ginnaaw ba yonent bi salaay sax gàddaay sax ba dem Medine toog na di fàttali ko xilful fudul ne une initiative la bu extraordinaire si dundam boo bokk na ci li ko gën a neex ci biir dundam te boobu yàlla yónnee ko nga xam ne kon euh, jullit bi par rapport ak suñu diine euh, diine suñu diine pour suñu ñun pour ñu neutre au contraire suñu diine seppiwul suñu loxo ci ce qui sa passe suñu environnement suñu diine daf ñu obligé au contraire d'être du côté de la vérité quoi qu'il coûte même bu jaree daf ñu obligé ñu nekk du côté de la vérité naan sax xul jaal xaq wa zahaqal baatil mu ne waxal ni dëgg teew na te la faux daw na n'est-ce donc kon euh, ñun jiit ñi kon mënuñu nëtt léegi nag Sénégal nag am lu fi xew jamono ji muy jaay doole jaay doole la bi nga xam ne jaay doole bu képp tànne la bi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, képp ki nga xam ne maandu na euh, ragal yàlla te àtte dëgg rek te yàlla tax bu xoolee li xew ci réew mi war naa tiit. bu demee ba ay nit di tiit sax di tudd turu benn doomu aadama mel ni kooku yàlla la tudd turu benn doomu aadama gars yi di ko ragalaa wax ci ay téléphone nan non instant yi wóorul ñuy déglu xam nga ni lii Sénégal fi mu lii lii li recul bu ñaaw ci Sénégal bu demee ba nit ki ay opinion ku ñuy jàpp te deful dara maanaam ku jug dem taxaw benn bërëb ci biir Sénégal bi xam ne moom si ñu ko moom la bokk ndax Sénégal ñun ñii ñëpp nous sommes actionnaires ñoo bokk Sénégal am na ma war na ma am sañ-sañ ma dox fu ma neex ci biir Sénégal ndax Sénégal sama réew la surtout euh, jamono bi nga xam ne dañoo def ko wër fa ce qui n'est pas normal dama jàpp ne ñu war a njëkk xeex ci biir dëkk bi ndax lii c'est en entorse à nos libertés individuelles lii mooy xeex bu war a njëkk Sénégal ci nit ñu tënkee ne amu leen droit dem fu leen neex amu leen droit toog fu leen neex dama ne États-Unis moo ñu ëpp kaa am na lu ëpp 500000 morts laa wax tënkee ñu leen ñu tënkee ni tey jii n'est-ce pas Guinée bii tout proche kenn tënku leen ñu tënkee n'est-ce pas réew yëpp yi xam ne ay dictateurs fa nekk di bëgg a régler ay problèmes politiques. dañoo jafandu ci biir corona bi pour jéem a régler problème politique yi corona bi jugee gu fi te xaaju gu fi jugee corona bi ay at la na def ci àdduna bi ay ati at laa wax n'est-ce pas waaw ah, fi ñu ko yóbbu yeggu fa bu ñu demee ba fii ak ay avril maximum avril euh, mai tàngaay bi ñëw corona bi dina daanuwaat kenn ko dégg ci n'est-ce pas bu ñu dematee ba novembre wala décembre gaa yi waxte ko pic ndax seddaay baa nar a ñëw te xeetu grippe kesal dafa ànd ak seddaay lii amul lu ci extraordinaire wax dëgg yàlla. Euh, waaye ku nekk mu koy jëfandikoo ci lu mu bëgg def dëkkam donc ñun ñu war a njëkk xeex mooy liñ ñu tënk tere ñu dox suñu ay soxla waaw li ñu war a njëkk xeex waaye nag man sama problème mooy lu tax ñuy jàpp ay jaamu yàlla yi nga xam ne defuñu defuñu lu ñaaw mun naa tudd ku mel ni ñoom Karim Abdou Karim dem taxaw def bëgg def taxaw place Défense bu def fa enregistrement pour wax ak waa sañ-sañam la war na ko mën def lu tax ñu war ko see jàpp toroxal ko mel ni comme un malfrat wala un vorier du yoon. diñ ko war dañ ci war a wax ñëpp daf ñu war a tiital daf ñu war a metti ñu ñëpp ndax xeex injustice mission prophétique la bépp wallu yàlla daf ko xeex Sénégal fii ñuy woote woon naan suy mag yu baax yi ñoom ñëpp dañu doon injustice lañu doon xeex rek injustice waaw injustice lañu xeex ku nekk à sa manière ñii par les armes ñii par la science ñii par l'éducation ku nekk am na métode euh, par l'instruction ku nekk jël na métode pour xeex l'injustice ak l'ignorance l'injustice l'ignorance ñaar yi dafa nekk au cœur Euh, des des religieux muy góor yàlla yi waxuma nag njabootu religieux yi man je parle des religieux n'est-ce pas euh, Dame Mbodj dañ ko jàppaale place d'indépendance tey jii lu tax ñu jàpp ko parce que dafa ñëw place d'indépendance te waru foo na ñëw maanaam place d'indépendance dafa taxaw fa tey gis naa sax ay journalistes yi xam ne leen tere ñu taxaw filmer place d'indépendance waaw place bi xam ne place de l'indépendance xam du pass boobu sax la suñu mag yi gars yi wax naan ñooy les pères fondateurs fa la ñu njëkkoon taxaw sax di revendiquer euh, di kaas ak seen ay pancarte taxaw ci kanamu tubaab bi nga xam ne moo ëppoon doole euh, saay-saay yi nekk fi maanaam doomu tubaab yi ndax ñii ñooy tubaab yi ñuul li fi tubaab yi weex bàyyi rek De Gaulle moo doole moo leen gën puissant ndax De Gaulle ak benn ngan di pré précaré bi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla euh, ëpp leen kàttan ëpp leen mën-mën ëpp leen xam-xam te pourtant ci taxaw nañu ñu bàyyi la ñu taxaw wax seen soxla lu tax place Défense nag mën na fa taxaw a ñaxtu wax soxla lii du dëgg du yoon te lii ñëpp ko war a métti lu ko war a bañ ba pare tere ko si dëkk bi donc ñu ngi jàpp ay honnête citoyen wax dëgg yàlla euh, di leen tëj te def lu dara Guy Marius Sagna la def nañ ma wax benn délit bu Guy Marius def à wax ne police bi dafay torturer ay doomu aadama te loolu dëgg la ay ñu génn jógewoon police génn wax nañ waaye ne seen ay torture donc dëkk bi ko li fi xew jamono ji dama ne kenn amul droit toog noppi en tout cas ñuy ndax ñoom diine def leen sas obligé leen jamono bu ne euh, waqulil xaq walaw kaana murran maanaam dëgg moom même bu dee da ngay loru da nga ko war a wax te man sax fii kam mooy fi mën a lor ndax ñu dañoo gëm ni la hawla wala quwwata illa billah dañoo gëm ni amul kàttan te amul pexe doole amul puissance amul lu may ci loxo allah subhanahu wa taala kese ko am Macky Sall bi est trop petit pour lor doomu aadama wax dëgg yàlla donc euh, kon xew-xew yi yëpp am ci dëkk bi ci wàllu jaay doole ci tere nit yi wax seen ay xalaat tere nit yi wax seen bëgg-bëgg tere nit yi mettitlu nu ñu yoree réew mi lii du yoon te ñëpp dañ ko war a mettitlu muy benn waaye ñaar fen gi ëpp na ci réew mi euh, mag ñu baax ñoon wax naan euh, saa yu nit euh, fenee rek nañu aras dafay yëngu ma ragal nag di kon xam naa ne aras de toogatul benn place ci Sénégal gii te bu doon ay xale ñooy wax lu dul dëgg su boobaa man wax dëgg yàlla dinaa du ma am problème dinaa ne kii kat xaaral dafa xamul lu bëri waaye fii ay kilifa ñooy fen te loolu moo ñaaw euh, chaque fois ma fàttali xoolal suñu gouvernement bi ñi ñuy woowee gouvernement nga xam ne ñoom ñoo censé liggéeyal ñoo censé joxe le bon exemple pour gën a jëmale réew mi kanam dañoo dëkkee du ñu fen daa iman te lii dafa yàgg senegal euh, yaa même pas ay weer maa ngi doon waxtaan ci ministre de l' agriculture bu Sénégal. fenam gu bëri gi mu doon fen ci wàllu campagne arachidière un million huit cent xaw ñaata mille tonnes te waxul dëgg waxul dëgg Sénégal amul loolu ci ay tonnes ay rapport conjoint yeneen yeneen organisation yi mel ñoom SIRS ñoom PAM ak dëkk yi ñi ñëpp def nañu ak seen satellite xool lépp xam ne Sénégal produire loolu lu tax toujours ñuy fen ci li nga xam ne wax dëgg yàlla aajoo bës te jaru jaru si lu tax ñuy nax di foog ñun ci suñu alal ba pare ñun tam ñu toog noppi yéen saa sam nangul woon lii biir màq màq saaba yi fa nekkoon yëpp di xeex lii la doon xeex maanaam fen gi ak naxe gi n'est-ce pas lii du yoon yem ma sax si ministre de l'agriculture ministre de la santé rek fan yi ñu weesu vaccin yi mu wax naan dañ ko dañ ko dañ dañu koo may waaw koo may jékki-jékki effacé dañ koo jënd lii lan moo ko gën a grave vaccin yi may wax ne Sinopharm moom en tout cas xaw ma ngeen vaccin de waaye Sinopharm mooy vaccin bu gën a cher ci vaccin yi actuellement ci àdduna ma damay topp vaccin yi ñoom AstraZeneca ak ñëpp maa ngi leen topp kenn ku xam naa si rek donte état yu bëri ñu prix yi mais fexe nañ ñun ba ba gëstu xam yenn prix yi nekk lañ koy jaayee la dose Sinopharm les deux dose euh, avoisine cent cinquante dollars donc kon benn bi mu ngi mu ngi avoisine mu ngi entre soixante et soixante dix euros maanaam sax dollar euro Euh, bu dee 2,2 milliards daf lañ jëndee 200 000 doses c' est pas vrai parce que quand on divise 2,2 milliards ak 200 000 doses dañoo dañoo war a nekk si ay 11 000 francs vaccin Sinopharm jarul 11 000 francs c' pas vrai donc lu tax ñuy fen def nañ ñu ko ci arène bi ne c' est dañoo leb pour defar ko président chinois yi ñëw fi dañ ñu ko dañ leen ko may li tax ñuy fen di lekk suñu xaalis li yàgg na fi euh, régime PS ci la nekkoon régime libéral bi ci la nekk ci la nekkoon ñëpp ñu ngi fàttali ko Abdoulaye Wade ak euh, fenam gu mag boobu mu waxoon ci dañuy defar dafay defar day day defar avion la avion la njëkk bëgg defar boobu ñëw Sénégal bu paree ne avion bi na Sénégal na na seen xel dal xaalis am nay xaritam yu koy defar te wax loolu dëgg dëgg mag dafa war di wax du dëgg te Sénégal dafa dañoo jël léegi fen oyofal ko mel dara ba mu ne ay xaritam ñoo koy defar yàlla natt ko ay journaliste gëstukat nekkoon fii kenn ku mel ni Latif Latif Coulibaly tey rek maa ngi gis tey Pa Mody Niang yàlla na ko yàlla yokk dëgëral kàttanal ko ndax moom sentinelle bu kawe la si démocratie sénégalaise ba mu neexee dama koy defar Latif bind livre Latif Coulibaly temps yooyu journaliste la woon yi moom euh, lèche bot la léegi nekk journaliste bu bind livre waaye ne Ablaye waxul dëgg avion bi dafa dañu dañ ko defaree ak 37 milliards la ñuy defaree avion bi fan l'affaire bu mujjee Ablaye génn wax tele ne waa dëgg la sax euh, vraiment c'est pas gratuit euh, dafa am ay contretemps ay dog amoon waaye wax du 30 du 30 du 31 milliards waaye 17 la li dara la moo gën a ñaaw kilifa ngay wax di di fen ngay wax di waxeet mooy du 31 17 milliards la n'est-ce pas 17 yi sax 6 euh, milliards yi Taïwan moo ñu koy moo ko may n'est-ce pas Taïwan n'est-ce pas le 1,5 milliard Arabie Saoudite moo ko may donc kon Sénégal 10 milliards lay supporté ci xaalis bi te loolu réglé na ko ba pare loolu tam waxtu woon dëgg n'est-ce pas building administratif bi nan lañ ci fenee ñaata milliards lañ ko defaree pour réfection réfection bu dee Sonatel tabax na moom waxuma réflexion dafa jënd terrain ñuy tabax ko te dépassé wul 10 milliards ñu bëgg ñu gëmloo ni building administratif bi ëpp na 40 milliards ñu fa def pour ko lu tax ñu yeb ñu à ce point là man lii dama jàpp ni haute trahison la ñu jàpp ni di ñu fen di ñu fonto di ñu toroxal di jël suñu ay koom-koom yi nga xam ne ñun ak suñu ay njaboot moom la ñu war a am pour dund dund bu gën a am dal ci suñu biir réew ñu jël ko ko jaay di ko di ko brader di ko tasaare di ko yàq di ko jox ay tubaab maanaam dañu nekk di ñu toroxal suñu biir réew ba pare suñuy génn te bëgg dem bitim réew suñu nguur yi tamit liggéeywaat ak kilifa bitim réew pour ñu toroxaat ñu foofu encore lii ba kañ lii ñëpp ci war a wax kilifa diine yi kilifa aada yi askat bi ñëpp ci war a wax lii du yoon yi dafa ñaaw donc euh, su dëkk nag yemee foofu dafay yell ñu xool ñi fi nekkoon doon dundee ñun fii xam nañ si Abdou Lahad ñu doon dundee fii Sénégal. xam na El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ñu doon dundee Sénégal xam nañ Cheikh Ibrahima Niass ñu doon dundee Sénégal ñii mosuñu toog noppi ci dëkk mosuñu ko def ndax ils étaient conscients que yàlla mooy alxaq ils étaient conscients n'est-ce pas xam nañ ne yàllaay dëgg te xam nañ ni àdduna gii duñ koy wécceeg seen àllaaxira ndax ñun ñëpp nañu dee taxaw ci kanamu borom bi ñun ñëpp nañu layoog borom bi te ku taxaw ci kanamu borom bi. wax dëgg yàlla na la laaj euh, mbir yu bëri yee xamee moom daf ko bañ xeex ko dàq ko pare ne xeexloo naa ko ñëpp ñu ma gëm ba mu xewee lan nga ci defoon yow n'est-ce pas donc euh, mu wax surfacturation c'est vrai surfacturation waaye yamul surfacturation sax Dakar Sénégal dafa am sax léegi benn organisation bi ñuy wax le FATF dafa def sax benn mise en dafa defaane benn mise à jour euh, base de Sénégal dañ ko boole léegi ci dëkk yu financé tourisme instant yi euh, si quatre pays dañ ko si boole Sénégal ak ñoom Burkina ak Maroc et cetera lii duggulit Sénégal c' est un c' est une plaque tournante du terrorisme sax instant yi régional et et continental Sénégal dëkku traficu drogue la bu ngand te ay autorité koy def ay autorité laa wax ñoo koy def euh, nguur euh, ñu ñu jege lool président ñoo koy def Sénégal ñooy jaar ci port. ñooy jaar fu ne ñooy jaar ci frontières yi moo xam suñu frontière ak Guinée Bissau ñoom ñooy trafiqué drogue bi yëpp la mafia de la drogue c' est des hommes politiques fii Sénégal ak des religieux ñoo ko fi géré waaw lii c' est extrêmement grave su amee ci dëkk bu ñu demee ba dëkk bi nga xam ne suñu port bi am na ay bateau yoo xam ne bateau bateau première dame maanaam bateau yooyu douane yi duñ ko xool duñ ko laal n' est ce pas bu ñu eggee foofu nga xam ne kon on a problème sérieux dans ce pays n' est ce pas bu ñu demee ba fenn toll fi xam ne euh, président si moom dafay am ay bien yi xam ne biens yi sax euh, mun nañu wax ni ay bien wu bien wu blanchiment rek la bien wu doy waar la parce que suñuy xool Pa Mody Niang mu ngi koy mu ngi ko doon leeral euh, ci këru président bu nekk États-Unis bu nekk Houston fa nan la ko amee fan la ko jëlee lu tax moom Houston kër Houston ak lu mu soree moos lu muy wut Houston kër lu tax moom foofu benn appartement fan la ko jëlee jamono bi nga xam ne. soit mu ngi woon mu ngi woon mu ngi woon euh, sa euh, Mayane saar sax mu ngi Sarr wala mu ngi nekk ministre de l'énergie jamono boobu Forteza commencé am contrat Sénégal et Forteza boobu siège am mu ngi Houston n'est-ce pas donc y a des choses yoo xam ne dañ ko war a xool dañ ko war a xool xam ko mu ngi xoolee président bu commencé dem di sonn di dem ba Eswatini Eswatini dëkk bi nga xam ne mu ngi wetu euh, Afrique du Sud. ñi euh, ñu dalal fi président Eswatini Eswatini benn benn pàkk la lu sax dëkk matul dëkk benn pàkk bu ndaw la ki vit au dépens de l' Afrique du Sud Sénégal le président Macky Sall ñu invité ko Afrique du Sud ci benn sommet bi nga xam ne sommet BRICS la les BRICS sont les émergents n' ce pas les émergents euh, mooy ñoom Brésil ñoom Russie euh, ñoom Chine ñoom Inde ñoom Afrique du Sud nii la ñuy wax les pays émergents les BRICS invité ab Macky Sall mu dem foofu. mu jógee fa jaar Eswatini ba pare invité président pour mu ñëw seet si ko fii Sénégal euh, en 2019 daaw boobu daawati jikk lan mooy intérêt Sénégal ak Eswatini Eswatini qu'est-ce qui nous apporte absolument rien c'est un pays super pauvre bi xam ne amaluñu njëriñ n'est-ce pas il fait absolument rien benn gros village daal waaye c'est un pays bi nga xam ne euh, paradis fiscal la fii sur le continent africain sàcc yu gën a mag ba ci président Mbeki y' a beaucoup de présidents africains yi xam ne seen alal yu bëri ñu sàcc seen biir dëkk yi dëkk boobu la ko jóg raawale ko foofu ndax dëkk boobu pour yenn poursuites yu métti yu am pays européen yi ak ay des gelé ay parce que léegi dañoo ragal sax bàyyi seen xaalis ay États-Unis dañoo ragal utiliser dollar ndax léegi dafa am ce qu'on appelle euh, ñoom dañoo am benn extraterritorialité de la loi américaine li ñuy def wàllu intelligence la ñu def géopolitique xam nañ ne laay wax États-Unis euh, dañoo forcer ñëpp. ci benn ñuy wax FCPA benn loi bi dafa def defoon depuis 1977 loi bi moo leen may képp ko jëfandikoo seen xaalis muy dollar wala nga ubbi compte seen dëkk wala nga ngay def business ak benn entreprise américaine wala nga am fa bien am nañ sañ-sañ ñoom euh, topp ko gëstu ko am nañ sañ-sañ jàpp ko euh, gelé ko yaa beaucoup sañ-sañ yu am ñoom seen biir euh, wax dëgg yàlla. seen biir seen biir euh, comment dirais je ñuy doxalee moo tax homme politique yu bëri sax États-Unis am sañ-sañ di la jàpp wala di convoqué homme politique di ko tëj dëkkam parce que da ngay utiliser dollar da am compte ci dëkkam les gars ñoo ragal a am compte léegi États-Unis n'est-ce pas euh, seen fàttali koo waat affaire quinze millions euh, dollars yooyu Taïwan kan la yónni woon benn conseiller Pierre Ayim pour jël fa la ko yóbbul Chypre lu ñu yóbbu ko lu ñu yóbbu xaalis bi affaire Idriss Seck ak lépp fa gars yi saa yu ñu dóoree xaalis ñu koy yóbbu bitim réew n'est-ce pas donc kon l'état de malgouvernance dans ce pays l'état de détournement le vol le matéisme n'est-ce pas euh, la dictature ci nangu suñu ay suñu ay àq ak yelleef lii yépp su ma xoolee dund ku ñu nekk di waxtaanee mi Mawlana Cheikh Ibrahim euh, ku ko doon xeex la ku ko doon bañ la ku su doon xeex la pour dindi ko ci àdduna bi di ci wax di ci waslu àq ndax ku dem ba am sañ-sañ toog ak buuru màq di ko fàttali ay devoir am ci xeetam ba buur yi mënul nelaw guddi gi yëpp yeew ne ko démb rek di nga ma ci xadis de nàngam xadis boobu def dëgg yàlla tax na nelaw ma guddi gi nga xam ne kon góor yàlla yi fi nekkoon Sénégal jamono boobu euh, góor yàlla yi xam ne ils étaient conscients de leur euh, te te bàyyeeku ñu woon donc Euh, may wax nag pour tëj parenthèse bi maa ngi gis ñëpp a ngi wax ñëpp ngi waxandoo ñëpp a ngi kaasandoo su ma si sañee am sama mot à dire ndax ma nag wax dëgg yàlla xeex bi moom incha allah suñu xeex la ñun ñëpp te ñun ñëpp dañu ci taxaw incha allah waaye may wax rek ni euh, dafa am juróomi point yi xam ne bëgg naa ko bàyyi bàyyiloo xel ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi actuellement ils sont prêts à résister par rapport à cette dictature là. Ils veulent faire face pour que nos libertés individuelles et collectives ne soient pas bafouées. Ils veulent être là comme des sentinelles pour défendre la démocratie sénégalaise, pour défendre l'état de droit, pour défendre la République. ñi nga xam ne ñoo gëm République bi donc man juróomi nag wax dëgg yàlla maa ngi dama jàpp ni il faut tamit savoir regarder ailleurs ce qui se passe feneen pour mën a comprendre naka lañu war a doxalee sa biir réew. gis naa ni ñëpp ñi nga xam ne xeex nañu euh, saay-saay bu leen bëgg defal dictature wala bëgg yàq seen dëkk. wala di tasaare di di di salfaañ seen ay seen ay koom-koom gis naa nit ñi xeexuñu ko ci benn fan si ñaari fan ils ont travaillé sur le long terme ci ay semaines la ñu am mobilisation euh, de tout le peuple pour mën fa jëlee saay-saay yooyu li moom vraiment l'expérience l'a montré n'est-ce pas muy benn ñaar il faut organiser toute forme de lutte lutte bu noo ko def nii par à la va-vite euh, di taxaw fii tey pare euh, amul benn organisation kenn coordonné wu ko une lutte non coordonnée et non organiser san stratégie lutte boobu mënul joxe résultat te mënul may ndam loolu tamit il faut ñu bàyyi ko xel ñett bi une lutte kenn ko concentré euh, devant une puissance bi nga xam ne am na élément de sécurité ak force bi nga xam ne mën na ko annihiler une lutte il faut savoir la décentraliser ba soo ko décentraliser dafay métti contrôler waaw lii euh, mooy troisième chose bi nga xam ne lu jar a bàyyi xel tamit lu ñu war a mën a comprendre la quatre euh, de la volonté ndax mbir yi ku gën a bëgg mooy am ndam fàttaliku leen 2011 Macky Sall mii nekk fi tey jii bëggoon na ko lool de ndax su demee ba woo ay militant pare nañ pour dem pale génnee fa Abdoulaye Wade ku mel ni Moustapha Niass bii nekk te président Sall taxaw tee xeer di taxaw di kaas ba mel ni ku ñuy naan tey de la rey nga xam ne ñi ils étaient prêts à découdre avec le système Wade ni ñu paree woon ci taxaw contre le système Wade. bu ko leen bëgg jëlee fii bu ñu bu ñu bu ñu taxawul comme ñoom ci noonu dañu bëgg wax dëgg yàlla du mën a am nest euh, lii daal laa jàpp ne euh, juróom kuy xeex tamit dafay mën a yott dafay am day am stratégie ba pare ba pare dafay xeex avec l'intelligence il faut gérer ces données il faut essayer de maitriser ces données ba kenn bañ ko mën a laal il faut essayer d'avoir les données du camp adverse pour mën a agir su sa stratégie àll lui parce que xeex bu gën a extraordinaire ma ngay xeex kenn pas sur ses mais su sa stratégie que tu détruis sa stratégie soo détruire stratégie am kese kooku instant dafay jànnaxi donc euh, xeex dafa laaj dafa am lu mu laaj laajul yor ay téléphone di wax laajul bindante ay message ndax l' soo demee fii au parquet rek am nañ logiciel yi nga xam ne euh, numéro bu ñu tàppee lépp luy message ak lépp luy appel loo def mën ko génne mën ko tracé depuis ba dëgg yàlla doo taxaw di di wax Euh, li nga bëgg a wax di ko waxtaanee ci ay téléphone ak ay ay groupe ak euh, group la gaa yi war a njëkk bàyyi euh, téléphones yi gaa yi di ko teg di dox sax di ànd téléphone da tax ñu mën la tracé parce que le téléphone est traçable nest il faut gaa yi comprendre ne il faut ñu dellu ci dix-neuvième siècle n'est-ce pas sans téléphone di wax parce que téléphone soo ko fayee sax micro bi ak caméra bi on peut l'exploiter n'est-ce pas nañu bàyyi xel bu baax a baax ci yenn aspects yi nga xam ne Euh, aspect yooyu aspect yu gars yi di xeeb la n'est-ce pas waaye euh, aspect yooyu soo ko respecté rek mën nga am gain de cause donc euh, on a en face nag quelqu'un bi nga xam ne il a déjà peur c'est quelqu'un qui a peur ndax ku soxoor moom su commencé jafur ne ni ku jafur di dóor nekk di dóor fu ne c'est parce que instant il est dafa nekk dans une dans un état de surpeur waa ji il a très peur wax dëgg yàlla il a peur peuram moo tax li mu gën a ragal la nekk di defaate ni instant yi mooy tëjaate kaso ndax moom xam na ni mu ragalee kaso euh, yëg nañ jooy yi mu jooy ba mu yaakaar ne ab Wade daf koy tëj kaso n'est-ce moom le virus ki may wax nii mooy le virus man le virus laa koy léegi parce que moo pire corona waaye il est pire que donc le virus dem na toog ci kanamu sëñ Baara di jooy ndax ragal nañ ko war a tëj n'est-ce pas moom virus nag kon que tëj la gën a ragal moo tax mu doon nekk di defaati tey jii. waaw may wax nag ni nit ku nekk li mu ragal waru ko waru waru see mucc waaw virus moom tamit ah na gaa tamit ba xam ni euh, ndax ñaari weer la ndax ñetti at la ndax ñeenti at la lu ko fi mënti dese n'est-ce pas lu ko fi mënti dese moom it daa war a ñam li muy ñam loo nit yi war na koo ñam ndax alquran nag dafa wax ne may may yaamal misqaala zarratin xayran yara waaye tamit wa may yaamal misqaala zarratin charran yara ku jëf lu toll ni atome ci lu baax di ko gis waaye ku jëf tamit lu toll ni atome ci lu bon tamit di ko gis nit nag jëf mënta réer ndax ñuy wax effet boomerang ni ki loo mënti def boo ko sànnee fu mu mënti dem dafay tourner si yow lay ñëwaat nit soo bañee dara dal la waroo ko defaate loo bañ ñu jox la waroo koo maye loo bañ ñu ñu ñu ñu dugal la si bul ci dugal doomu jàmbur c'est que lii euh, lii c'est très important ñu bàyyi ko xel kon moom virus virus a peur il faut ñu comprendre loolu n'est-ce pas virus dafa ragal euh, macha allah yàlla na yàlla defal feex nag ndax dëkk bi euh, virus moomu ko ay ñoñam moomuñu ko n'est-ce pas ay ñoñam moomuñu ko famille am moomu ko virus duñ ko bàyyi mu yàq dëkk bi nii wax dëgg yàlla parce que dëkk bi dafa jóge fu sore sore dëkk bi dafa am lu bëri lu koy xaar li mu war a accomplir dëkk bi ressources yu am solo ñoo fi nekk. quand je parle de ressources je parle des hommes doomu aadama yi fi nekk la moo tax may wax ay nit yu am solo ñoo fi nekk ay nit yu am maanaa ay boroom xam-xam yu yu tedd n'est-ce pas ay gor ay gor yu sel n'est-ce pas yàlla def fi baraka dëkk bi fa am baraka dëkk bi su amul woon baraka lu bëri li dal yeneen dëkk yu jege daloon nañu bu yàgg waaye yàlla defal ñu taw féex teg loxoom euh, ak ñaan bu bëri gu fi am ndax kilifa yu bëri nelaw ñu de gars yi ñu ngi seen kurus ñi ñu ngi seen i téere di jàng. wax dëgg yàlla lii yëpp forme la tam ci xeex rek ba tey euh, na gars yi tamit bañ di condamné képp ki xam ne gis nañuy xeexuloo xeex soxlaw ñu ñëpp au front il faut tam ñu comprendre loolu xeex dafa am ñi nga war a sàkku dañoo war a féetewoo ñaan am ñi nga xam dañoo war a féetewoo di joxe ay conseils n'est-ce am ñi xam ne ñoom ñoo war a nekk dañu diggu dóomu pour mbir yi su su su demee feneen donc xeex dafa mel ni équipe rek ñëpp mun ñu nekk neuf dugal a doo but nekk il faut ñu nekk neuf ñu nekk ay milieu de terrain ñi nekk ay défenseur ñi nekk gardien de but ñi nekk supporter taxaw si gradin yi di di yuuxu ah, ñi nekk treizième gaynde di tëgg di fecc ñi toog seen kër yi waaye ñoo jënd maillot yi di finance équipe bi c'est comme ça que une équipe euh, évolue à chacun son post et kenn ku nekk dans son poste il essaie d'être meilleur pour ne pas pénaliser les autres n'est-ce pas donc euh, macha allah lii moom ab euh, junju kese la xam naa ni lépp lu mu laaj ci taxawaay ci xalaat ak lépp ñun dañoo pare ci loolu te ñun loolu mooy suñu mooy suñu liggéey sax ñun suñu liggéey ñun wax dëgg yàlla problème mu intelligence la stratégie donc lii moom euh, du ñu war a régler du ñu war a leeral ci internet waaye nag lii ñaax la rek pour ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi gis ni euh, suñu ay àq ak yelleef ñu ngi koy yàq ndax ma dama gis ni dafa am ñaari mbir yoo xam ne ñaari mbir yu ma metti la mooy couvre feu bii waaw lu ma metti la n'est-ce pas lu ma metti loolu la ñaareel bi mooy waxin gu gu tegginewul gi wax gu xamadi gi nga xam ne kii tey ñu ñu tàbb jox ko suñu suñu kàttan jox ko pouvoir jox ko mën-mën jox ko budget jox ko armée jox ko jox ko lépp ni muy waxee ak ñun c'est irrespectueux et irrévérencieux dama ko xool ci euh, bésu bu muy ñàkku ñàkkam boobu sax dara waxuma ni euh, euh, vaccin bii la ñàkku man wóoruma parce que ñii dañ ñoo fen dëpp bu fi toogee ba tey man lépp lu ñu wax gëwuma ko ak lu mën doon nag man gëwuma ko loolu sama droit nag ci ki nga xam ne dañu naan kundoo bi rey sa maam foo séentiloo ñu mbeccet ngay def ñi ngi wax dëgg yàlla dañ ñoo dañ ñoo wax lu dëgg di ñu inoculer des contre-vérités des anti ak des faussetés ba nga xam ne instant bi wax dëgg yàlla gëm naa ni ils sont incapables de dire la vérité man loolu laa gëm n'est-ce pas waaye ni mu taxaw waxee ah, euh, ni mu doon waxee déjà sax ak ak ay troubam da ngay yëg ni kii buur la euh, buy wax ak ay dàggam waaw ñooñu nag ñu ñàkk job lañ su leen neexee ñu nangu ko loolu euh, mu wax nag ak sénégalais yi ci vaccin yi waaye ni mu waxee dafa mel ni moom xaalisam la jël moom jënd vaccin yi euh, war koo vacciner nit yi ba pare soo dama koy maye kii lu muy def la petit malin yow déjà deux cent mille vaccin nga yor vaccin Sinopharm deux doses la mooy que deux cent mille vaccin cent mille personnes kese la pour quelqu'un bi nga xam ne ba tey seen biir ay fen neen seen stratégie vaccinale mooy vacciner vingt pour cent du peuple sénégalais maanaam trois millions cinq cent mille personnes la war a vacciner Sénégal n'est-ce pas moom vaccin yi mu jotagum nii instant pour cent mille nit la cent mille kon des na ko trois millions quatre cent neen ñoom ñu ngi waxtaan ak waa Russie pour Sputnik V ñu ngi bokk ci initiative COVAX bu bu eh, bu OMS bi nga xam ne mooy quatre vingt douze pays yu gën a ñàkk jom ci àdduna bi ndax initiative COVAX cent e quatre vingt dix pays la quatre vingt eh, dix huit yi nga xam ne ñoom dañoo participer génne seen gafa li ñu tàmmoon wax naan aide publique au développement APD nga xam ne dafa amoon ay règles sax ñuy wax ci économie nga xam ne ñu si bëri respecté wu ñu ko yaa ngi quatre wala cinq pays ñoo ko respecté di joxe 0,7 pour cent de leur PIB di ko aider pays yu pauvres yi nga xam ne ñoom ñoo leen appauvrir en réalité. donc initiative boobu kon pays forts yooyu ñoom Canada ñoom Suisse ñoom États-Unis ñoom France ñoom Danemark ñoom Suède dëkk yi yëpp euh, ñoom Japon ñëpp dañoo génnee dañuy cotiser. pour baadoole yi ñu bokk la àdduna bi nga xam ne ñoom mënuñu dara defal dara seen bopp ay xale lañu ñu dimbal leen pour ñoom ñu mën a ñàkku te du dimbal parce que ay dëkk ñoo defal vaccin yi vaccin ay milliards la lii xam ne dafa yàgg si dëkk tubaab bi maanaam damay ñëw taal ba pare andi ndox ñëw fayal la ko ils sont de pour vaccin yi n'est-ce pas ñoom ñoo ko defar c'est ay entreprise la ay AstraZeneca ay BioNTech euh, Pfizer Moderna yi yëpp ñoo ko moom n'est-ce pas ñooy defar seen vaccin yi ba pare euh, neen la ñuy may waaye ba tey euh, tàppale gi man amul problème waaye mu am yeneen 92 pays yoo xam ne ñoom nee ñun mënuñu vraiment foog ngeen dimbali ñu jàppal dañu suy noo du baax si ñun billaay soo ñu sataane dañuy nar a dee mooy dëkk yi ñu yaay wooye waa rek ñàkk jom Sénégal ci la bokk donc ñii ñu ngi tàllal loxo di ñaan euh, AstraZeneca leen nar a may n'est-ce pas ak yeneen ay ñoom Moderna ak Sénégal moom wax dëgg yàlla li moom xam naa def naa ci waxtaan ba pare ci Moderna Pfizer vaccin ARN yi problème température yi euh, moom euh, température yu xam ne Sénégal jumtukaay technique bi sax maanaam logistique bi sax yu bëri amu ko ndax conserver vaccin à moins quatre-vingts degré wala ay moins yi moom Sénégal mënu ko ay moins quarante degré Sénégal amu ko mënu ko n'est-ce n'est-ce pas waaye euh, vaccin yu gën a yomb yi nga xam ne vaccin normal la réfrigérateur kese la entre moins de huit degré lii Sénégal vaccin yi mën na ko jëfandikoo n'est-ce pas AstraZeneca ci la bokk AstraZeneca boobu Afrique du Sud jamono bi ñoom euh, dañoo jël sax seen stock bu ñu jëndoon dañ ko jël dañ koy dañ koy jaay Union africaine n'est-ce pas parce que variante bi ñuy wax variante sud africaine bi AstraZeneca mënu koo tëpp n'est-ce pas mënu koo régler donc te ñun variante boobu mu ngi fii Sénégal la variante sud africaine loolu dafa am beaucoup d' incohérences yoo loolu du ma ñaar ci vaccin parce que vaccin yi moom aar nag gënu koo ngand gis naa la gars yi taxawee ma non professeur Seydi sax wax na professeur Seydi li mu wax xamu si dara n' est il parle c' est pas le scientifique qui parle n' est ce pas de voilà conseiller en matière salitaire du gouvernement qui a opté pour une stratégie vaccinale homme moo wax mais li mu dëgg yàlla Sinopharm bi pour cent n'est-ce pas le traitement fii au Sénégal ci feebar bi traitement bi dépassé na quatre-vingt-quinze pour cent ñuy wér n'est-ce pas feebar dañuy dugg ngay dañ leen traité une semaine dix jours maximum da ngay wér képp ku ci mettre sa bopp en quarantaine toog euh, renforcer système immunitaire lekk vitamine D naan lu tàng euh, éviter nekk ak nit yi toog noppalu da ngay wér li extraordinaire la n'est-ce pas extraordinaire la donc euh, bon parenthèse rek pour dire que dañ ñoo yàgg fonto di wax ak ñun naan soo ko jëfandikoowul dama koy maye. ñun li ñu soxla ñu maye mooy ñu maye Macky Sall virus moom ci yoom ñun dañu war a maye dañu maye virus ndax ñun soxlawuñu ko n'est-ce pas moom nag taxaw na pour lépp li nga xam ne soxlawuñu ko ne daf koy maye mel ni si poche ba jógee wala moo ko moom gars yi kaay ñu maye virus ne virus wuñu ko n'est-ce pas ndax virus ñu njëriñ euh, xale tubaab bi la te ma ragal naa ni moom sax virus bi nga xam ne ku ñu ko bëgg a may ci pays africain yi da ngay bañ ndax amul pour dire que euh, wax ki nga xam ne moo la embauché. moo moom moo lay moo la fay moo la wóolu tabb la ngay wax ak moom ak mépris ak irrespect di wax ak moom ci di ko fontoo waaw lii baadoo la kese ko mën def te yàgg naa ko wax dëgg yàlla donc euh, Kempes noonu gars yi kay ils veulent être ils veulent ñoom être euh, idiots ndax yëpp am yoo xam ne moom il faut pour mën a dugg ci biir gaal googu fer bi nga xam ne la kenn xamagu ko ba tey mu ngi ba tey mu ngi mu ngi dem xamaguñ ko wala kon on le maîtrise pas un an la defagum ci àdduna wala un an ñu la feebar boobu ci moom mu ngi en mutation y a des variantes am n'est-ce bëgg la gëm loolu ni vaccin bi moom na la si musal waaye soo ko vacciné tam ba tey da ngay continuer sol masque da ngay respecté mesure nga bëgg gëm ni vaccin bi moo lay sauvé c'est dof weesul loolu waaye ku bëgg dof it wax dëgg yàlla sa droit la waaw sa droit gis su ko temps yi sax gis naa ni moom lay wax ba man le directeur bi liggéeyul waaw ndax bàyyi na euh, ay mbindeef yu bëri yu génn foofu dem si plateau télé yi di ñu sonal waaw di ñu sonal ne Euh, lépp lu ñuy wax du dëgg dañu dañu tooñ euh, di yàq débat yi débat yi ñu kenn mënul jàng ci gars yi n'est-ce pas donc euh, macha allah na par directeur parc am na récupérer ay éléments am delloo leen ci parc ba waaw te na na tàmbalee ci élément bu mag bi virus dañ ko yóbbu parc ba waaw loolu daal mooy sama xalaat ci wax ci donc pour dire que rek parenthèse rek pour dire que fii dañu ñu yeb en niveau bi nga xam ne. Euh, te au fond suñu xoolee ba xool est-ce que yellul ñu yeb ñu n'est-ce est-ce que yellul ñu yeb ñu ndax ñun dafa mel ni nous réclamons rien ñun mettit lu ñu dara lu waaye du def su méttee ba métti dañuy taxaw si biir Facebook bind ay message ñiy def live ñiy toog seen ataaya ku nekk wax sa wax après ñu bàyyi ñoom dafa mel ni dañoo comprendre ne ñii du def dara moo tax ñu continuer du ñu fontoog di ñu toroxal bu ñu xamoon ni ils auront un peuple résolu buy bañ yenn yi di fi di fi di fi am dafa am yi xam ne instance yi toog di werante te ñu ko may wala mayuñu ko vaccin Sinopharm bi Sénégal dafa ko jënd wala jënd ko werante bi ñu naan sax dans un pays républicain sérieux warul am l'institution ñu dire clairement mu bind dañu ah lii kat Sénégal daf ko jënd nangam la ko jëndee wala lii kat Sénégal jënd ko dañu koo may n'est-ce pas donc euh, ñun xam nañu mayu Chine les états n'ont pas d'amis n'est-ce pas ils n'ont pas ils n'ont pas d'ennemis les états ont des intérêts n'est-ce pas fii nag am na ñu bëri ñu jàpp sax ni yenn mbir yi xam ne Chine daf leen ko may Chine du euh, dafa am euh, en matière de de de prêt peut-être ñuy yëngatu ci wàllu finance xam nañ li may wax li ñuy wooyee élément don élément don on le calcule on calcule si benn prêt concessionnel am quand il y a une concession euh, on calcule qu'est-ce que c'est que l'élément don am na ñu bëri ñu don bu demee ba bu matee 35 pour cent kese ce prêt là mooy concessionnel n'est-ce pas mais Chine da ngay ne kaay ma jox la waaye attention joxe ma la ko nii sax sama banque moo la koy lebal mooy joxe xaalis mooy fay xaalis pour yow après da ngay fay sax banque n'est-ce donc Chine dafay gagner trois fois wala quatre fois sa kaw daf lay jaay un produit euh, jox la un prêt par force prêt boobu moo fay produit bi ba tey yëpp dëkkam la n'est-ce euh, ak leneen ak leneen li nga xam ne yow yow vraiment si chaîne bi chaîne de valeur bi doo ci am dara wax dëgg yàlla donc mais nag yàlla yàlla defal tawfeex parce que problème bi le débat fondamental et loolu moo ma àndiwaat ci sama si l'homme du Euh, sur le débat de la souveraineté n'est-ce pas souveraineté parenthèse moo wax léegi ci vaccin yi euh, c'est absurde ah n'est-ce pas euh, c'est absurde déjà de concevoir doomu aadama yëpp ci àdduna bi ne ñoom ñëpp ñoo yem nous sommes pas pareils nous avons des constructions immunitaires totalement différentes il y a des gens très forts immunitairement il y a des gens très faibles immunitairement y a des gens qui ont besoin d'assistance euh, am na ñeen ñoo xam ne il se il se passe d'assistance médicale nit yi yemuñu n'est-ce pas étant donné nag que yemuñu euh, harmoniser et généraliser une seule chose pour tout le monde hérésie gënul ngan loolu notre science actuelle man noonu laa jàpp suñu science bi euh, science ay la man ay dollars laay jàppee man sincèrement scientifique yu bëri seen scientifique laay nanguwul n'est-ce pas ndax ñun wax dëgg yàlla ñun fi ñuy tibbee dafa dépassé gars yi ma jox exemple bu ndaw xool exemple exemple comment dirais-je euh, comment on l'appelle euh, lu ñuy def suñu lay opérer l'anesthésie ñoom tubaab bi nee ñoo ko créé nee ñoo ko créé seizième dix-septième siècle nest pas soo demee si anal yeeg soo demee Google ak fépp nee ñoom ñoo ko créé si entre seizième ba dix-huitième siècle ñoo ko créé am seen ay tur tubaab ak lépp ce qui est fou est-ce xam ngeen ni en Égypte fii ñu ñuy woowee prêtre yi ils avaient développé une méthode bi nga xam ne dañ doon comprimer en même temps ñaari artères carotides yi ñuy wax les artères carotides on les comprimait en même temps loolu dafay tere euh, draine bi muy yéeg au cerveau su wàññee l'afflux normal de sang dafay déclencher benn perte de conscience soo baa da ngay mel lii da ngay mel ku xëm ñu ñu def une intervention ci sa yaram n'est-ce pas intervention sa yaram li c'était l'anesthésie n'est-ce pas à côté de ñoom assyriens yi n'est-ce pas les assyriens ils avaient sax ñoom conçu un breuvage yoo xam ba instant meex yow soo demee suñu maam yi fii ci biir dëkk bi euh, xam nañ ba tey xam-xam yi pour anesthésier fenn fii xamee anesthésie locale on le fait foofu doo si yëgati dara on le fait avec un mélange de belladone les assyriens utilisaient la belladone ak du chanvre indien li ñu wooyee yamba waaw waxuma pour ñu toog ko nag voilà ak mandragore l'arbre de mandragore ñett ñu doon boole pour def une anesthésie c'est pour dire que li ñu bëgg gëm gëmloo ci cette science là qui est dite moderne science bi vraiment andiwul lu bees ñun jàngaluñu ñun lu bees en tout cas ci yaram n'est-ce pas euh, par extrapolation yaramu doomu aadama ñun dafa am ay principe ci wàllu tasawuf te loolu mooy objet sax tasawuf xam nga tasawuf léegi moom la ñuy waxtaanee léegi ci lan mooy faydu ndax Cheikh Ibrahim loolu la andi. Euh, bokk la ci faydu libérer toutes les formes de connaissance may la nga mën a ascensionner pour mën a jot ci xam-xam yu gën a kawe yi ñu dugal la ci confluent des connaissances ñu woowee al maarifatu maanaam géej nga xam ne moo boole mboole bi xam-xam yi nga mën fa dugg mën a jariñ ci xam-xam yi mën naa jox exemple bu ndaw comme on parle de de on parle de de science on parle de yaram dinaa lii maa ngi ciy def benn benn bind yaramu doomu aadama ñun doomu aadama ñoo gëm ne. c'est le microcosme et le macrocosme en même temps sooy dem dans les principes hermétiques euh, on va dire que li nekk ci kaw ak li nekk ci suuf benn lañu am li nekk ci kaw mu nekk ci suuf li nekk ci suuf mu nekk ci kaw li principe nest comme le principe de l'attraction yëpp principe yi nga xam naa ko ci benn livre mais bu ñu tuddee les clés de la félicité li boobu génn depuis daawaat jikk c'est disponible en France comme bu ngeen mën na ko jël livre développement personnel la n'est-ce pas les lois la nature les lois naturelles moom les l'attraction la polarité euh, tous ces lois là donc li nekk ci kaw mooy li nekk ci suuf li nekk ci suuf mooy li nekk ci kaw mais tu verras que ñun yaramu doomu aadama comme suñu suuf suñu teer bi ni ñu gëmeen dafa am ay méridien xam ngeen les méridiens de la terre méridien c'est des lignes imaginaires yu doomu aadama yi pour chaque un degré n'est-ce pas ba wax sax ni méridien principal ñoom bu ñu jàppee ne mooy départ ba tey c'est une vision occidentaliste euh, suprémati euh, bu tubaab bi yàgg am méridien boobu elle passe par Londres jamono Londres moo nekkoon capitale de la la recherche et de la science n'est-ce pas muy méridien de Greenwich yëpp jàng nañu ko école n'est-ce pas les méridiens ak les les parallèles n'est-ce pas la longitude ak la latitude c'est vrai que am na njëriñ bu ñuy gëstu ci wàllu ci wàllu géométrie euh, am na njëriñ am na njëriñ parce que elle permet ñu mën a positionner euh, quelqu'un sur le globe n'est-ce pas waaye dans la réalité des faits méridien naturel yàlla bind ci kaw suuf si dafa am ay méridien méridien yi matuñu lu ñu trois cent soixante nest pas matuñu ko les méridiens réels yàlla bind elles sont dix-sept ci kaw suuf te lii suuf yankee ñoom lii may wax ni man lii bien avant science ak géologie ak yëpp ñoom di wax